acca yi noonu la demee ah journée la 18 décembre samedi lay tombeel ak faatu Balla production xaban bu Kër Massar booy xombal bu benn baraak acca xabaan ñu bàyyi la nga woote fan si ak supporters yi ak ànd jàmm yi waaw maa ngi woo waa Kër Massar yëpp mhm. nañ ñëw jàpp si combat bi mhm. ak suñu waa écurie Kër Massar mbooloo mhm. waaw ñu jàpp gan gi daan ko mu jeex takk <laughs> ñu wuti leneen ah waaw kese est-ce que est xombal dina nangu loolu jàpp ah, maa ngi bëggee ñëpp bëggee waa uh-huh. rajo bi yëpp ah. Uh-huh. waa di woo ñëpp di woo Sénégalais yëpp. Uh-huh. di woon nii ni xabaan dañ koy defal bagage la. ah loolu yomb na de loolu yombul. non yombul. ah ni ko waxee noonu la yamee. ah incha allah comme bi nga jaaroon bi passé Iba Mar. noonu lay demee. waaw lu jël yëpp. ndox du bàyyi yoonam de. yaa ma gën a samedi sama samedi la samedi. samedi da jig. sa samedi la. sama samedi la ñu taay bi. ay géant lañ de ay poids lourd lañ. ay njool lañ noonu la demee ci biir réew mi FM la xewe woon ah ci ak Fatou Balla production maman na fee ngi noonu waaw waaw ah.